dafa mel ne Pape Sidi. dafa dugg ci àll bi taxanal ñu. moom dafa dugg ci àll bi taxanal ñu. te doomu aadama dundam soxlawu ci lu dul matt. mais ci dundam muy jëfandikoo fii. fii lay togge. fii lay togge. lañ koy tegal ëllëg.

benn piis spécial rek a xaj ci ñun. nee kat benn piis spécial rek moom moo xaj ci ñun. ñun téléphone yàlla lañu. nee ñun dañoo xam ni kat téléphone yàlla lañu. ordinateur u yàlla lañu. nee ñu xam ni itam nag ordinateur yàlla lañu. disque dur bi ci biir. nee disque dur bi nekk ci biir. mooy Muhammadu Rasulullah. nee bokk nag mooy Sayyiduna Muhammadu Rasulullah. information yi ñu soxla di recevoir. ne information yi nga xam ni soxla di recevoir. di Allah. dafa ci Allah. ku bi nekkul ci yow. bi ci yow. da ngay téléphone. ne yow da nga mel téléphone. Bo amul Bo amul wala wala bo kenn enregistré wu la. yow day fiis bi nga yor kenn enregistré la. wala soo sàgganee ba ñu enregistré la. wala boog ñu enregistré la. de defoo defoo yitte. te defuloo yitte. pour di am crédit. pour ngay am crédit. moo tax ñëpp perdi. sanq ba léegi Pape Sidi lool rek la ñuy wax. ne moo ne sànq ba léegi de Pape Sidi mi moom la ñuy wax ba tey. moo tax sànq bi xaaj daa nee moo tax sànq bi alxaaji Dagoor miit bi muy fittax tayu ko bi nga xamante nee na bëri fittax teyu ko moom fi Pape Sidi toll nee ndax kat li ko waral mooy fi Pape Sidi Ahmed toll ruuxam daf ko yëg nee booba bi mu fay toll xaaji Dagoor mi booba ruuxamam ko yëg mu bëgg waxi leer yi solu ci ñun ne mu bëgg nag waxu leer yi nga xam ne mooy jollee ci moom mu solu ci nun mu jibal fi turu koo xam ne moo tax xaji dawgor jibal fi turu koo xamante ni moom mooy ki nekk kooku mu jibal nag mooy ki nga xam ni moo nekk mooy ki am te it kooku mu jibal mooy ki nga xam ni moo am ban baat la yëkkati mais ana ban baat la alxaji dawgor yëkkati laa ilaha ne mu yëkkati laa ilaha illa illa allah allah allah allah jooju lañ soxla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 suñ ko defee sax ci. ne su fekkente ni defee nañ ko loolu te sax ci de. allah sëpp ñu. bu boobaa allah daf ñoo sëpp. ban xeetu sëpp. ne ban xeetu sëpp nag bu boobaa moom la ñuy sëpp ñeewanti. mooy sëpp ñeewanteem ci ay jaamam. sëpp yërmande. ak sëpp yërmandeem ci ay jaamam. bu leen fàtte ne moom moo wax ne. ne bu nu fàtte mukk ni moom moo wax ni. yërmandeem. mu wax ni yërmandeem ci mbooleem lu mu sàkk ci mbooleem lu mu sàkk moom sunu borom ci mbooleem i bérébam ci mbooleem i bérébam moom sunu borom du kenn ne du kenn nag kudul kudul sayidana muhammad sayidana muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko doon ci roy ak ñi nga xam te dañu ko doon ci roy gu ñu ko roy ba doon ko Pape wax na sànq ci waxam ne Pape Seydi Ahmed wax na sànq ci waxam ku yàlla nar duma yomb naa xam koo xam ni yàlla daf la nar a duma kooku ku yomba xam la xam nga noo koy xamee sabadu nee na xam nga nanu la nuy fexe ba xam foo fekk kuy xatal mais foo fekk koo xam ni dafa xatal kooku yàlla ko dàq ci yërmandeem yàlla nañ ci yàlla musal nee nañu xam ni kookee yàlla moo ko dàq ci yërmandeem kooku yàlla ni yàlla musal ci wa ma arsalnaaka mu wax ni wa ma arsalnaaka illa rahmatan illa rahmatan lil alamin lil alamin koo ci mën a génne mais kan nga ci mën a génne mais kenn nga ci mën léeg-léeg nga gis sama classe gi. mais léeg-léeg nga gis sama classe gi. di am koo mere. di am koo xam ne da nga ko mere. bëgg koo génne ci yonent bi. ba noppi nga bëgg koo génne ci yonent bi ngir sa mer gi nga ko mere. lu tax. mais ana lan moo tax. mooy. nga jàppe sa bopp bëccëg. yow da nga jàppe sa bopp bëccëg. nga jàppe ka ca des guddi. ba noppi nag nga jàppe koo ka ca des nag guddi. guddeeg bëccëg ñoo bokk ndey ak baay. ne xanaa xamoo ni guddi ak bëccëg ñoo bokk ndey ak baay. ki jàppe boppam bëccëg. mais ki nga xamante ni dafa jàppe boppam bëccëg. danaan man maay musulman bi. kooku dafay wax naan man de man man maay musulman bi. yow yaa ko waxal sa bopp. mais yow yaa ko waxal sa bopp. est que yàlla validé na ko. mais est ce que wax nga wax adressé ko sa bopp. ndax yàlla sunu borom wali dina ko ci yow. ka nga jàppewul jullit. mais yow ki nga xamante ni jàppewuloo ko jullit. moom nga jàppe guddi. kookee nga jàppe guddi na. na yàlla saxal benn guddi rek bëccëg du am. mais na yàlla saxal benn guddi bañ am. mbaa bëccëg guddi bañ am. wala boog yàlla ma toog. mais mu toog. naan yàlla sax. naan yàlla moo ne xariisun. moo wax ne xariisun. aleykum. aleykum. teg andil. nee nga indi bil muminina waxul bil muslimina de. nee yàlla kat foofu waxul fi bil muslimina bil muminina te nekkaguñu muslim. te nag nañoo xam ne muslim. bay xalaat mumin. bay xalaat nag mumin. raufun. nee raufun. rahimun. rahimun. yàlla ne. yàlla sunu borom yéen mu ni nun su ma leen yërëmul. sunu yërëmul. loolu ngeen foog ne moom ngeen te du ngeen moom. li nga xam ne dañu foog ni moom la te doona doona gunu moom. xaaral rek ma far wàcc. yàlla ne xaaral rek ma farwaat. sama mbindeef yëpp jot ci. ndax sama mbindeef yëpp jot ci. ci sama ñeewanti. ci ak ñeewante sama yërmande. ci yërmande moom moo tax. moom moo tax. yàlla suy wax jarul muy giñ. yàlla de suy wax moom jarul muy giñ. mu ni inna allaha. moo tax mu ni inna allaha. binnaasi. binnaasi. la raufun. la raufun. rahimun. rahimun. looloo gën a yaatu bil muminina de. mais loolu yàlla waxaat nag moo gën a yaatu comme wax bil muminina kon. mais kon nag. ku jëg jël yoonu dakaar koo xam ne dëgg a jóg jël yoonu Dakar. te xam nga ni yoonu Dakar nga jël. te xam nga ni kat bi ngay jël yoonu Dakar nga jël. ba mu jaral la nga jël essence. ba mu jaral nga jël essence. nga àgg Dakar. nga dem ba àgg Dakar. naan indiwu ma fi sama bopp. nga naan man kat Dakar gii ma ne indiwu ma fi sama bopp lu ma fi indi. ana la moo ma fi indi. sa bopp. waay waay seetaatal sa bopp. kon. kon. sëriñ bi ne kon. bay bu nee na kon. li Baye Sidi doon wax. li nga xam ni mooy Baye Sidi loolu doon wax. yal nañ ko fat. fa mu war fatu. ba mu nekk yóbbal boo xam ne day doy sëkk mat sëkk ba dootuñ wut yóbbal. mu nekk ci ñun yóbbal boo xam ne dafay doy sëkk mat sëkk ba dootuñ wut yóbbal amiin. ma laaj leen benn laaj. papa du ne ñu ndax yéen a njëkk a ñëw Jaksaaw. mais ndax ñun ñu loo njëkk a ñëw Jaksaaw de. seen daan nañ fi ñëw. mais suñuy baay daan nañ fi ñëw te baay dañoo nekkoon i ndaw. di ànd seen i maam. mais suñuy baay dañoo yi leen jur. bañ fay ñëw maam El Hadj lañ fi daan fekk. mais sunu maam yooyee nag bañ fiy ñëw maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu lañ fi daan fekk. wala déet. kon lolu dañ ko wara sante yalla ah, su ko defé ku bëgg ko xam ne bëgg yalla gané gane si la far far soppi ngan nga def ko dëkk yalla gané si la ba noppi far soppi ngan nga mo la gané si defal la ko dëkk na nga takkoog la ilaha illa allah ne ko ka bur ko bëgg lu ñëpp dañ takkoo ak la ilaha illa allah te allah du mëna a ñëw ne te allah du ba ñëw feeg lépp rotul lu dul yàlla. li feeg lépp rotul te set wecc lu dul yàlla dong. foog mu rot. mais foog na dana rot. nga ne dungu. nga ñu dund na. yàlla soglaa solal boppam. yàlla nag soog a ñëw sol soglaa solal boppam. moo ne jàngal nañu ko de. mais moo ne dëj yàlla jàngal nañu ko. nan la bëgg ñu mel suñu digganteeg moom. mais yàlla jàngal nañu nan la bëgg ñu mel ko suñu diggante ak moom. mooy ni liir ganesee àdduna. mooy ni nga xamante ni noonu la liir ganesee ci àdduna. kan moo fi juddoo ngemb. mais mi ngi laaj ñun ñëpp ku fi juddoo ngemb. du kan moo fi juddoo couche. mais kan moo fi juddoo caaya. su dee jigéen ñi moo fi juddoo sër. jigéen ñi kan moo fi juddoo sër. ne dumm. mais ñëpp dañu ni dumm. moo tax. nee na loolu moo tax. da ngay summiku ci lépp lu dul yàlla. dangay ngay ci lépp loo xamante ne du yàlla. te loola mënul nekk. nee te nag loola mënut nekk. lu dul nga njëkk a summi sa bopp ci sa bopp. lu dul nag ni da njëkk a summi sa bopp ci sa bopp yow. mooy nga summiku ci sa bopp. mais moo di nga summeeku ci sa bopp. su boobaa. nee ku mel ne yow. ku ni man. dootul jéem. sol la boppam. maa ngi dégg léegi Pape Sidi di ñaanal. nee ngi dégg léegi Pape Sidi di ñaanal. alxaaji Malick Tine bi nekkoon fii la. alxaaji Malick Tine bi nekkoon fii. daaw fekkewul ndeq mi. ah kay daaw fekkewul ndeq mi de. ndax yàlla waxon nako do fekke nek mi ren. mais ndax yàlla waxon nako ko nek mi jowe mi do fekke fekkee yàlla na fa fekk yërmande yàlla. mais mi ngi fallal loxo yàlla di ko dox ni yàlla. gaañu jàpp bu di alxaji Malick yàlla fekk sa yërmande amin ak kep kum mu fekk àllaaxira. mais ak mbolem ko mboolem koo al hadji alxaji Malick fekk na la alakhirah ñi nga xamne mais ñi nga xam ne nag. dañoo yëg ne dañoo tooñ seen bopp ba yaakaar ne yàlla soxlaatu leen. ñoom dañoo yëg ne dañoo tooñ seen bopp ba yaakaar ci seen bopp bi yàlla soxlaatu leen. yërmande yàlla yàlla na leen ci yàlla njëkk a sédd. mais ñooñu nag yërmande yàlla yàlla na leen ci yàlla njëkk a amiin. ndax kat. mais ndax kat. yërmande yàlla. yërmande yàlla. du ngóore nanu xam ni kat du am ngërëm coobare yàlla lay doon loolu kay coobare yàlla lay doon moo tax seen maam Cheikh Al Hadji Malick mais moo tax sunu maam Cheikh Seydi Al Hadji Malick nee na bi mu xamee ne mais bi mu xamee ni yàlla xamal ko yàlla sunu borom xamal ko ne ajjana ni ajjana ci coobareem la fay yóbbuwaatee ci coobareem rek la fay yóbbaatee moom yàlla kërug safaan nga yàlla nañ ci yàlla musal mais kërug safaan nga yàlla nañ ci yàlla musal amin ba tey ci coobare yàlla la. mais ba tey nag këru safaan yi ci coobare yàlla la. nee na ci la noppaloo. mais ci la maam Cheikh Seydil Hadji noppaloo. ba lépp lu muy seq ak yàlla. ba mboolem lépp loo xamante ni maam Cheikh Seydil Hadji Malick koy seq ak yàlla. suñu borom ci ndimbalal yàlla. ci ndimbalal yàlla. yàlla ju raxul dara tax. mais yàlla ju raxul dara moo tax. moo tax nee na. mais moo tax mu ni. ëllëg. ëllëg fu ko yàlla joxoñ fu ko yàlla ne ko demal tàbbi fële. ni ko Malick demal tàbbi su dee àjjana. mais su fekkee ne àjjana la joxoon. du soppiku du soppiku wala ci yëg-yëg lu toll ne pepp suuf. suuf du tax mu soppeeku. su ko nee fële. su ko nee nee na su fa jëmee. nee su fekkee ni fa la jëmee. du soppiku. du soppeeku. lu toll ne pepp suuf. lu toll ne pepp ci tiitaange. ci tiitaange ndax nee na ki ko sant moom moo ko sañ sant. nee na ne ki ko sant di ko jëmal fële. moom moo ko sant sañ a sant di ko jëmal fële. yal nañ yàlla yóbbu ci niveau boobu. xamoon ne su ñu yóbbu suñu suñu tàqalikoo. nee suñu tàqalikoo kenn ku nekk. ku nekk dara gënul metti mais dara gënul metti ñu lay yónnee ay message yu leer ñu di lay yónnee ay message yoo xam ne yu leer la ay ñami leer ay ñami naani leer ay naani leer te foo toll te nag foo toll yaa ngi yëg ne aksiwul siwul yaa ngi yëg ni ak am na lu ko waral mais bu yooyu te leeru yàlla leer leeru yàlla du yokku lu dul ci ndab lu set. lu dul nag ci ndab lu set. ndab li yàlla yekku. nee ndab li nga xamante ni moom la yàlla sunu borom di yekku. mooy fan. nee ana mooy fan. ci am. nee ci am. ci xol ci xol la mais ci xaasul xaas mais bu fekkee ne ci xaasul xaas la ci ruux la ci ruux lay nekk la ko la la koy may nag mais li nga xam ne nag moo la koy may ba nga man di yëg alwaaridaat yi wàcc si ba nga man di yëg nag alwaaridaat yi nga xamante ni mu ngi wàcc si ci yow yàlla dafa mat ba soxlawul yàlla pour def dara mais ndax yàlla dafa mat ba soxlawul pour def yàlla dara soxlawul am gi pour def dara mais soxlawul am gi pour def ci dara ñun ñii ñëpp nag maa ngi leen di ñaan fa ba fabadu ne lu ñii ñëpp mi ngi luy ñaan ki ñu fagul li ci mbaxu yalla ki nga xamante soom la yalla mu fagul li ci mbaxu yalla la muy jaamu yalla bi tok muy jaamu yalla bi tok di pap Sid Ahmed si muy bashir Sid Ahmed si bii ñun ñepp war nañ koy ñaanal yalla way ñun ñepp def war nañu talal loxo yalla di ko ñaanal moom mi amna na lool mais am na lool rëy ga reuy ga dayo ba dayo motax mom motax do ko meuna yek fi do ko meuna yek fi do ko meuna lamb ba daj ko fi do ko meuna lambit ba daj ko fi do ko meuna xol doo ko mën a xool. mbaa nga teew lu ko. ba ne mi ngi nii. ba ni mi ngi nii. ndax. ndax nag dafa mel ne ci waxi. dafa mel ni ci waxi. nga jël. nga jël gileem. gileem boole kook ñay. nga boole ko ak ñay. bëgg leen laq. bëgg leen laq. sa suuf rondal. ci sa suuf rondal. ndax loolu mën na nekk. mais ndax loolu mën na ne déedéet. yàlla nañu yéex a gis. a gis. bëccëg bii ñu Pape Sidi fàggu bëccëg bii nga xamante ni Pape Sidi Ahmed fàggul na ko ak bëccëg ya ko jiitu ak bëccëg ya nga xamante ni nañ ko yàlla nañ ca yéex a àgg fàggul na ne yàlla nañ yéex a àgg ca bis di jéggalu ñëpp ngi di jéggalu ñëpp di baalu xàq ñëpp di baalu xàq ñëpp di sàkku seen ñaan nee ñu ngi suñu ñaan ñëpp xam nañ ne lu ngeen ñu ñaanal def nee nga xam ne lu ñu leen ñaanal na def loolee neex na lan moo tax. képp ku lay xoole bëtu cofeel ngir jëmm yàlla. képp koo xam ni ma nga lay xoole bëtu cofeel ngir jëmmi yàlla. kooku ndawal yàlla la ci yow. nee nañu xam ni kooku kat ndawal yàlla la ci yow. waaye lu ngeen baax baax. nee waaye nag lu nu baax baax. di ngeen xam ne yàllaa leen gën a baax. danañu xam ni yàlla moo lu gën a baax. lu ngeen gore gore. nee lu nu gore gore. di ngeen xam ne ki leen abal ngor gi. dinañu xam ne nag kii nga xam ne moom la leen abal soxlaatu ko. te la nga xam ne moom te ngoon tedd nga. tedd nga sutura. sutura xéewal. ci moom la doore. ci moom la doore ci moom la yem. ci moom ku koy am. ku koy am moo la cay abal. moom moo la cay abal. loolu. nee loolu. lii jarul a xeeb de. nee lii nag jarul a xeeb de. jarul a xeeb de. foofu rek lañ ci mën a yem. a gaañ. nee bokk yi. nañ jéem a dellu ci yàlla ne ñun ñëpp nañu jéem a delluwaat ci yàlla donte ne waruñ faa waruñ fa woon jóge sax bañ ñu fay delloo mbaa ñuy dellu donte la nag waruñu fa woon a jóge sax ba ñu fay dellu mbaa ñu fa am ku nekk am na lu nekk ci sa kanam ne ndax kenn ku ne ci noonu am na lu nekk ci kanamam ñun ñii ñëpp ne ñun ñii ñëpp ma ñëw ci yëfu wolof ne mi ngay ñëw ci yëfu wolof la mooy yàlla na yéex mooy yàlla yéex loolu yëfu wolof la. nee loolu nag yëfu wolof la. su may waxee wolof foog ma waxee noonu. mais su dee wax yëfu wolof foog dana wax noonu. man dama naan jaru jaru jaru ko yàlla na yéex. mais jaru ko yàlla na yéex daf koy wax. ndax du am. ndax du am. te jotul. te jotul te su jotul. te nag su jotul. kenn mënul fexe mu am. kenn mënul fexe mu am. su jotee. te su jotee. kenn mënul fexe ba du am. kenn mënul fexe ba du am. loolu moo taxoon Sayyiduna Ali. ne loolu moo taxoon Sayyiduna Ali. suñ daan dem xare. soo xamee ne ñu ngi dem xare. xaax yi mel ne man. nee xaax yi mel ni man. ragal tapet lool. nu ragal tapet lool. di wut lay bu nekk. nuy wut lay bu ne. mu génn téye jaaseem bocc. moom dafa génn rek téye jaaseem daal di koy bocc. di way ya muy way ya pour delloo si waat nit ñi pour delloo waat nit ñi mu naan fii ay yow may ya ma ngay wax naan fii ay yow may ya minal mawti afir minal mawti afir a yow ma lam yuqdir a yow ma lam yuqdir am yow ma qudir am yow ma qudir xaaj Malick mu ni même Hadj Malick wax ñaari bis ban la ci wara dawde daw dee ñaari bis kon ban la ci wara dawde bis bi ma warul de numa ci dawé de dee bis bi nga xamanteni waruma ci de lan la ci dawé de bis bi ma waré de bis ba nga xamanteni dama war de ndax dawde dina tax ma mucc ndax ma dawde dana tax ma mucc de kon gañi mais kon nak mun gañi wallahi alazim ne wallahi laadim ku ñu foog ne ku baax la koo xam ne foog nañ ni ku baax la yàllaa ko gën fuuf ci ñun ne yàllaa ko gën fuuf ci moom li yàlla man ci ñun ne ndax nag li yàlla man ci ñun bàyyi manu ko bàyyi manu ko nday manu ko nday manu ko kudul ñoom manu ko kudul ñoom manu ko xattaa yonent bi manu ko ne xattaa yonent bi yàlla bind mu gën ku yàlla bind manu ko su koy man itam ne wala su koy man itam ci man loo gu ko yàlla man loo moo tax mu man ko ci man loo gu ko yàlla man loo ci la koy manee su ko defee nag mais su ko defee nag nañu góorgóorlu nañu góorgóorlu di dégg ku la naan. nee daa dégg ku la naan. diggante yàlla ak yonent bi kenn xaju fa. diggante yàlla ak yonent bi kenn xaju fa. waaw xëy na seen xam-xam moo toll foofu. nee waaw xëy na ñoo koy wax seen xam-xam moo toll foofu. waaye ku yàlla baaxee. waaye nag koo xam ni yàlla baaxee na la. wallaahi mën nga faa xaj. wallahi mën nga faa xaj. mais ci benn condition. waaye nag ci benn condition lay doon. yonent bi balaa ko yàllay def yonent. nee yonent bi balaa ko yàlla la ko njëkk def. nee lan la ko ab jaam. nee ab jaam la ko njëkk a def. sooy dugg ci lislaam. nee soo dee dugg ci lislaam. ndax ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammadu rasulullah moo la ciy dugal. nee ndax ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammadu rasulullah. moo la ciy dugal déedéet. foog abduhu ñëw. nee foog abduhu dana ñëw. kon nag. nee na kon nag. ku nangoo nekk jaam. koo xam ne nag nangu ngaa nekk jaam. te kenn warul tax nga nekk jaam ku dul yàlla. te kenn warul tax nga nekk jaam ku dul yàlla su boobaa. nee bu boobaa. yàlla xajal la ci digganteem ak yonent bi. yàlla daf lay xajal ci. ci digganteem. ci digganteem. ak yonent bi. ak yonent bi. ashadu. ashadu laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. Ah, ah, abaa rasul abduhu wa abdu boobu xam nga noo koy déggee ne abdu boobu xam nga nan lañ koy déggee diggante yàlla ak yonent bi diggante yàlla ak yonent bi ni ko yàlla defee li ko yàlla defee ci mbaaxam ci mbaaxam ak bëgg gu mu bëgg yonent bi ak bëgg gu bëgg yonent bi dafa mel ne mii sumburu ne dafa mel ne que mii sumburu bële ne côté bële di moom di moom côté bi côté bi di sang bi di sang bi waaw ñooxit bokkul ci mburu mais mu ngi lu la ndax ñooxit bokkul ci mburu akay waaw soo nangoo nekk ñoo xi ne su fekkee nangoo nekk nag ñoo xi boobu daa di xaj seen diggante daa kon boog nee na kon boog guddi yi ñu toll guddi yi nga xam ne ci lañ toll istigfaar ne istigfaar ak latiif ak latiif doy na sëkk ne doy na sëkk jarul baril di xër ne jarul nag nga di ko bàyyi di xër استغفار القيومي القيومي تمودي استغفر الله تمودي استغفر الله العظيم العظيم الذي الذي لا اله لا اله الا هو الا هو الحي الحي القيوم القيوم دنكوي ديف ني دنكوي ديف 156 nga def ko témèr ak juroom fukk ak juroom ben so ci paré so yaa latiifu nga def yaa latiifu waxuma yaa latiif de yaa latiif yaa latiif yaa latiif du ngeen saxoo ko suba ngoon mais nanu koy saxoo téeméer téeméer ak ñett ak ñett nga ñaanal ñu si Papa Sidi nga ñaanal ñu si